dikkati naa bu dee jékki-jékkal moo tax golo doon tey baabun bi mu doon Mamadou Lamine Diallo ci turbine yéen kaay sampub laaj mbaadu gudd nopp nag ak guddum xel moo tax tey ñuy wax njombor laaj wa Mamadou bëgg laaj moom moo di teg xel mbaadu moom la ñu nar ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mbaadu nag nguurug président Macky Sall bii dafa bëgg teg xel askan wi tëj tëj lu université yi mel ni daal réew mi amul jàmm jël prétexte xeex gi nga xam ni amoon na fa fas yéene nag dàq étudiant yi ni leen toog leen seen kër ba jamono neex bu jamono neexee ñu ni leen neexagul xaar santu nag ba jël suuf soosee daal di koy paacoo daal di koy jaay lii ab laaj la boo xam ni Mamadou Lamine Diallo daal dina koy samp samp ko nag ci tribune yéen a kaay l'exclusive mel ni ku naan kon bu leen dara jaaxal ci réew mi xam nga scandale boobee nga xam ni am na ca béy ca commune bu Bambilor te xeexoo ci wàllum suuf amoon ca ñu tudd ca promoteur boo xam ni daanaka dañ ko jébbal hectare yoo xam ne maar day taali yéen kaay bi naan man tudd nañ ca suuf soosee Amadou Ba tudd nañ ca suuf soosee Mamour Diallo xalif ba Thierno Amadou moom moo ko xamle daal di xamle ni ñoom ñaar ñëpp ñëpp yëg nañ la nga xam ne am na ca mbéy moom xalif bi daal di ne moo taxit Benno Bokk Yaakaar ma ngay dund lu métti ca Bambilor waxuma la ci parrainage yi rek waaye gars yi ci boppam dañ leen guuxal mer goo xam ne ña ko fas yéene wàcceel leen ko ca présidentielle yi turbine yéene kaay naan maan réew mi mbaa dee su ko damat ku na jël sab damit ut foo jubali yéene kaay bi naan maan ñi ngi cim réew moo xam ne lu waay neex def daanaka la ci wàllu patam patamee fast track la DCMP daal di walide ci benn bés ab dil boo xam ne juróom ñaar fukk ak benn milliard la muy ab marché soixante onze milliards boo xam ne ministère de la santé moo ko defar Afrique conception distribution yéen kaay bi naan maan ba ñu laajee Marie Khemesse Ngom Ndiaye mi nga xam ne moom mooy ministre de la santé dafa ne lan moo tax marché bi ñu daal di koy patam patamee dafa fekk ni fitna mars deux mille vingt et jaar na fi fitna juin deux mille vingt trois jaar fi lii tax nag marché bi ñu daal koy patam patamee daar daar ci benn fan daal di koy taxawal kontra ba nag daal di soxal benn l'hôpital bu yees bu ñu war taxawal ca Bakel waaye tam benn centre bu diagnostic ak imagerie médicale ca Fatick turbine naan maan ci benn fan laa la wax benn benn ci la ñu patam patamee marché bi daal di koy jébbal Afrique Conception Distribution ci 71 milliards lii day budul scandale xaw ma lan mooy scandale tribune naan koon ma ni la assise yi day dàqoon nañ ko ci buntu bu ndaw ba boo moytuwul nag dees na ko andiwaat ci buntu bu mag ba lii day dëgg ci réew mi réew mi ko dañee nan man en tout cas dëggi Ousmane Sonko ci ëllëgëm ci wàllu politique dees na ko xam fukki fan ak ñaar ci weeru décembre daal dinañ koy jàppal bés ba nga xam ni moom Ousmane Sonko dees na ko xamal turam day wéy di faasewu ci liste électorale bi wala dees na la ko ci delloo siwaat l'observateur nan man booba mi ngi ci guddi gu moom Ousmane Sonko ndax député bii di Matar Diop daal dinay xam ni dafa am ay fonds yoo xam ne dañ ko jébbal Ousmane Sonko te fa mu jógee baaxul yéeni kaay bi nan man député bi ma nga taxaw temm ci waxam laaj wi samp nag ci parti politique yi lan moo leen di financé ndax nag fi ne procureur mën na autosaisiru de daal di soobu nag ci parti politique yeeg seeni financement waaye xool a baax réewum Sénégal lees financé politique bi source a nan ba muy candidat am bu mën a tardé wala bi naan man bennoo bokk yaakaar day bu leen jëlul seeni gard Amadou Ba bésu wote ga man la boo moytul tardé lay def ca watukaay ba bu de ay activité politique am day tardé bu dee ci wàllu institution day tardé ca géejawaay 15 heures lañ ko doon xaar Amadou 8 heures ci guddi la fa ca gaaya ñu ko doon xaar ngoon 4 heures du matin la yegg si ca géewul 17 heures lañ ko doon xaar fajar la yegg si keroog ba mu amee ab ndaje ak task force bennoo bokk yaakaar bi 20 heures fajar lañ gisee moom ca petit palais looloo coowal sandwich président Macky jëlal say matukaay le point actu naan maan matukaay bu mu mën a jël day du dàq élection ci réew mi El Amat Thiam juriste consultant mi ngi xam ne ni Cheikh Yérim Seck la mu wax ci présidentielle bi ne mënees na bu kawe bi dafa daal di tàbbal géej décret bi nga xam ne moo tabb gaayu Sénat yi loolee mënta tere benn yoon élection présidentielle yi am ci réew mi ñaar moo mën a tax fii ñu tollu élection yi ñu mën koo dàq mooy révision constitutionnelle wala it bu ñu demee ba càppaandaw la parrainage ba jeex ñu xam le ñii ñooy candidat yi yàlla tere kenn ci candidat yooyu yee faatu lii mënees naa dàq élection ci code électoral bii ñu samp ñun Sénégal seeyal ab Sénat mënta tàbbal géej ay élection njaga si laa daal dina dàq ay élection ci moment bi ak fi réew mi toll dana salfaañe lépp loo xam ne mooy charte fondamentale bi critique yéen kaay naan kan en tout cas bi moom naxee mbaay kese ña ngay convoqué ki defi décret te à tout moment mënees naa wax trouble wala leneen loo xam ne mën naa dàq élection léegi dëgg moom nar a jib kañ ci Mimi Touré ma nga ca lang ga ma ngay wax moom mi bés bu jiitee réewum Sénégal nan la ko war a doxalee waa grand place naan man Alioune Sarr it candidat la xamle na ni fukk ak juróom ci parti politique ak juróom-ñaar fukk ci mouvement ña ngi koy jàppale ci assemblée générale d'investiture bu coalition CAP 2024 bi nga xam ne moo ko samp xamle nan ni Alioune Sarr mooy seen candidat gannaaw dépôt caution ba Alioune nan leen nangul naa leen ko dinaa doon seen candidat fas yéene ñetti téeméeri junniy yoo xam ne daanaka junniy milliards ci sunuy koppar la liggéey ci ay millions doomu aadama waaye tam ay milliards du gaat sunu koom gi ñun Sénégal fas yéene waa bitim réew it ñu taxawal leen loo xam ne daañu mën a soob seen loxo ci politique bi nga xam ne mooy doxal réewum Sénégal Sénégal gii ñu nekk laas yéene kaay naan man président Macky Sall day ma ngay fëgg dënnam naan nag dama koo servir ak amour waaye daanaka dama jox sama lépp réew mi ngir bëgg koo ñoŋal mu jëm kanam Le Soleil yéene kaay naan man Sall day tegati na beneen jéego ngir Sénégal nag daal di ci industrialisation ci pàcc bu njëkk bi junni ak ñetti téeméer fanweer ak ñeent ci ay xëy na leen taxawal président Macky Sall naan usines yi ñu taxawal waaye tam coopération diggante Chine ak Sénégal wane na ni bor yi ñu amee du ay ndëgg sërëx waaye tam du loo xam ne dees na ko ràngoo muy diis ci ñun yéenekaay bi naan man Sall daloo na benn avenue ca Diamniadio Le Témoin yéenekaay naan man diggante président Macky Sall Léopold Sédar Senghor ba ci président Abdoulaye Wade daanaka président Macky Sall fexe na ba kenn dootul fàtte benn président bu jaar ci Sénégal ci Diamniadio Tribune yéenekaay mu def def bu mu fàtte ni béykat yi ñu ngi daal di sëngeem njëgu gerte gi moo leen naqari ba mar day taali te ñu ngi xupp nay boo moytuwul seeni gerte day duñu ko jaay nalkatu dawlin ni fii ci réew mi daanu ko jaay ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ndax la nga xam ni moom la leen nguur gi fixeel loolee arrangé wu leen te mën naa faatuk baykat yéen kaayib des média bi naan maan lii faat sénégalais kay mi ngi muy fitna yoo xam ne ñi ngi koy teg askan wi ceeb bi ñoo na ay samba booy ñoo daal di song benn wata ñeenti nit a tey gaañu gaañu yoo xam ne mitti na lool l'observateur naan maan kenn ëppul coono livreur am bi patronam moo ko yónni million ak huit